ñun lii ñuy def nii dañ ciy jaamu yàlla dèjà dañ ciy liggéeyal sëñ bi quoi en plus ay murid lañ mais dañ ciy invité ñëpp tiijaan yeeg xaadir yeeg laayeen yi chrétiens yi sax ñëpp dañuy jàpp si café di jàpp si maajaal bi quoi waaw lépp heure ndog bu jëlee dañ koy jox daanaka teg si maan yeeg borom oto yeeg ñëpp waaw loolu yëpp dañ koy def te yàlla tax waaw waaw. gisoo ni daa amul woon ren moo am ban mbégte ngeen ci am. waaw am nañ ci mbégte bu yaatoo yaatu quoi parce que daaw sax amoon na sax gars yi ñu ngi ko dem def mais xam nga. gars yi moom des a da ngay def café ñu lay wool ay police xam nga foog ne affaire banditisme da si am te ñun jógteewuñu loolu quoi dañoo jóg di def rek te yàlla tax waaw ak jox gars yi wóor ñu ndogu macha allah mu rees ak jàmm waaw mais yenn paa yi ñu yi dañuy wool ay gendarmerie xam nga te loolu rafetul quoi lii toll dañ cee toll di ko def rek bu jeexee jeex na dañoo bàyyi suñu liggéey bàyyi suñu lépp ñëw pour def café gi pour yaatal ko mu yaatu quoi kon paa yi nañ bàyyi itam éviter loolu di dem di ñu clamé foire le ñu ngi bëgg def fii ay cant pour café gi waaw loolu na si gars yi jàpp bu baax lu ñu si mën a jàpp ñu jàppale ñu si quoi. xam nga ñun loolu moom maanaam euh, daaw amul affaire bi tuuti nañu métti nañu mu nekkoon feebar bu nga xam ne la su ñun ñu ñaanoon mu jóge fi mbas bi yàlla dimbale ñu ñu ngi koy mu ngi dindee dindeeku nànka nànk mais lii nag lii moom lii moom dafa jé weer bi dafa jege doyo weer bi weeru yónnante bi la lii lu si waaye defoon rek si yow la lii loo ci def ñu fay la ko. ak xol li liggéey sëñ Bamba la li ñun dañuy ñun waa axlu kafe gi fii kafe Ouest Foire gi fii ñun dañuy liggéey sëñ Bamba te yàlla rek tax ñun dañaa bëgg sëñ Bamba lu dul di ñoruñu ay ndaw yi am ñam lañ dañaa dégg déggal suñu waajur yi tamit bëgg nañ manko manko boo xam ne dangay def loo xam ne après suñ ay mag wala suñu ay raq nañuy bàyyi xel te ñu ngi waajal ay cant ay annuel yu rey fii ak fan le huit bii di ñëw incha allah bu neexee yàlla ak yonente bi mais nag yéen seen taxawaay rafet na nag yéen a ngi wër axlu kafe yi di nemmeeku di xool seen taxawaay ah ñun de nii lañ defee ñun waaw tepp tepp moo gën yuréet lu ñu am loolu lañuy def joxe bégal nit ñi te yàlla rek tax. est na ñoo xam ba moment ngeen ko commencé. waaw léegi lii nag moom léegi mu def sept ans moom. sept ans léegi mu def sept ans si biir axlu bi fii nii fii ñu ko gis nii fii la musa ne léegi waaw yàgg na daal suñ ay mag la woon ñëw ba ñun ñu jël ko ñu tamit seen topp seen ay suufi tànk. c'est bonne volonté ñu waaw gars yi daal ah Ouest Foire moom doon benn la fi moom paa yeeg maire yi ah amuñu seen fay ñu ngi ñaanal ñëpp daal gudd fan ak wér jàmm yàgg Sénégal waaw ah, xam naa ne daal quartier bi ñu dëkk daal ay borom yërmande ñoo fi dëkk daal xam naa si dara waaw ñu ngi leen ñaanal wér ak wér la ak mboolem jullit. Hmm. yéen a ngi préparé guddi Cheikh Ibra bi comme yéen ay Baye Fall ngeen jur boobu yéen ko moom de. waaw ah, ah waaw xam nga ne loolu jarul sax wax. mooy maanaam géej gi ndax am na ndox guddi maam kenn du Cheikh Fall daal waaw ñun daal aafiya rek tawfiix waaw fii moom mbégte day bégale maam kaf gaa ngi nii daal waaw ñu ngi koy waajal toppatoo doomu aadama yi ñu wooroon xam nga di wàcc di ñibbi seen kër yi embouteillage bi leen baare di jaayante loolu pour ñoom ñu am mbégte rek waaw. fan yii yëpp ak corona bi tax na. defuñ café bi affaire yooyu noonu mais ñun ak temps boobu ñu def yëpp teguñ ko bii nii dañ ñëw sax ak ay innovation yu bees amaana dañ ñëw xaw a gën a organiser affaire yi def ay t-shirt affaire yooyu noonu gaa nag métti woon na liñ toog nii yëpp defuñ ko moo tax biñ ñëwaatee nii ñu andi ko en force xam nga ak ay règlement yu bees mu gën a rafet parce que tamit mbiru Baay Faal la mbiru ñëpp la moom mais loo gis tamit bu jaxasoowee kenn du si mën a def dara amaana foog ñu réglementé ko mu mën a jaar yoon ba tax na année bii nii jamono yi ñu weesu nag pour tegoon mais bii nii dañ ñëw teg ko ak yeneen facettes yu bees yeneen visage quoi yu bees lañ ba laa bëgg a wax waaw maanaam noonu la demee daal. mais est-ce que am na ay bon volonté yi ñëw di leen jàppale. bien sûr xam nga ñun amaana mën naa ne sax dañu wuteeg yeneen café yi quoi parce que ñun ci bon acte bi amaana defuñ pour ne xool leen ñu wala affaire yooyu. da ba tax na si biir loolu certes dañuy jël suñu alal di ko def si biir mais tamit dañuy jël dañuy collecté affaire de Baye Fall la Madial ñëpp xam nañ ne Madial yëfu Baye Fall la ñun dañuy Madial ñi ñiy jàll dañuy joxe joxe boo xam ne sax ñiy ñëw di ko consommé waat ñooñu amaana fekkee moo leen si boole mais seen dara demu si xam nga maanaam daal ñi ngi koy organiser ba mi ngi jaar yoon affaire de Baye Fall Madial joxe lekk ñëpp macha allah daal ñëpp kontaan ñun looloo ñu tax a jóg ñun.